tabarakallahu di leen ziyaar di leen ndokkeel day rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen chaîne télévision bi nga xam ni tabarakallahu mooy leeru diine ji waaye ak leeru xadratu at tijaniya ah, suñu jotaay tey ñu fas yéene dellu siwaat ak yéen ci suñu jotaayu daara bi ñu dippee leeru mag ñi fas yéene te ànd ak yéen ginnaaw bi ñu waxtaanee lenn ci dund mu assisu tariqa at tijaniya ca mooy fondateur tariqatu tijaniya al cheikh ahmad at tijani sharif radiallahu anhu ginnaaw bi ñu jàngatee lenn ci dundam ak histoire am bi ñu ci jógee ñu jaar ci al mujahidul akbar al cheikh omar al fouti radiallahu anhu wa nafaana bi barakati moom it tabaarakallahu taxaw nan tuuti ci dundam mu nekk dund goo xam ni yaakaar naa ni ah, macha allahu ta'ala ay jotaayu jotaayu jotaay la laaj ngir leeral ca lu bari waaye leeral lépp it sax daanaka mënul nekk. ginnaaw loolu ñu fas yéene dellu siwaat ak ci kenn ci kàngami lislaam yi ci kenn koo xam ni nag ah macha allah waxtaane ko tabaarakallahu mooy waxtaane lislaam waaye waxtaane ko mooy waxtaane alxadratu tijaniya kenn koo xam ni dafa bokk ci ña yàlla tuddoon ci aaya ba min almuminina rijalun sadaqu ma aahadu llahi alayh fa minhum man qada naxbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila kooku mooy kan mooy mawlaana alsayid alxaaji malik si radiallahu anhu xam naa li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ni inna li ayaami dahrikum nafaxaat alaa fa taaradu laha laalla an tusibakum nafxatun laa tashqawna baadahu abada yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yàlla subhaanahu wa taala ci yërmandeeg baaxam léeg-léeg dinay wàcce ay nafaxaat ay barke ay leer léeg-léeg mu wàcce ay xéewal xewal yoo xam ni ak leer yoo xam ni ak barke yoo xam ni yonent bi nee na buy wàcc gaaw leen taataan ci ndax ku taataan ci leer yooyu ba dara laal la ca lu tolloog tarfatal xayni mooy yow sak texe yàlla euh, ñeel la maanaam du too texee di ko ba faw Sidi Hadji dafa bokkoon ci nafaxaat yooyu moo tax ndeysaan góor ga euh, Chérif Younous ca Casamance kenn la koo xam ni moom yàlla xamaloon na ko loolu donte ni mësul gis Seydi El Hadji Malick waaye yàlla xamaloon na ni ko Seydi El Hadji kenn la ci gaa yooyu yàlla def bu amee njaboot rek jël yónnee Maodo ni ko demal nga jàngi ci moom mujj waa dëkk ba yëpp jaaxle naa ko waa góor gi yow nitu yàlla bu toll ni yow boroom xam-xam bu toll ni yow ca doom joo am rek ni Seydi El Hadji a koy jàngal lu ko waral mu ne ah Seydi El Hadji nag dafa bokk ci yàlla def ñu nekk maftuuxun alayhim mu ni Seydi Haji nit la ko xam ni yàlla moo ko gërëm ca ku toog ci keppaaram sax bokk ci ngërëm lool mu ni moo tax dafa bokk ca ulaika al qawmu la yashqa jalisuhum moo tax doom ju mu am rek jël yóbbul ko ngir mu bokk ca ñooñu Seydi Haji Malick di taata eh, eh, tëbb ci leer yooyu ndeysaan Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu nekk kon ci ñooñu nga xamante ni ñoom la borom bi subhaanahu wa tànn ñu nekk ay tànneef ndax it euh, ca biir téeram ba wax na ko ca muy xilaasu zahab ba muy wax ci nitu yàlla boobu ñuy tuddee xudar Seydi Hadji Malick di nettali wax ju bari ja ca am ndax yonent la wala malaakal wala waliyu la waaw boroom xam-xam yee wax jabari lool waaye moom ci maandu teem ak mën a jàngaleem mu wax ni wa fi wilayatihi aw kawnihi malikan qul innahu saalihun tusdaq wa tuxtarami sëriñ Maalik ni waaye bul dugg ci weranteeg coow la bul dugg ci coowu xudar yonent la wala malaaka la mu ni daal soo bëggee mucc waxal ni xudar waaju baax la woon saalix la woon ndax kat yonent moom lu mu am am maqaama mënta génn maqaama saalixiin wallahi malaaka lu mu baax baax baax mënta génn ci maqaama saalixiin nitu yàlla lu mu baax baax mënta génn ci maqaama saalixiin ndax a saalixiina mooy maqaama bi gën kay mooy gaay yàlla yu baax ya moo tax wolof di ko tënk ni booy tàgg nit ba ni ko sax dangaa baax leneen loo ci wax charxaala waaye mbaax mënta weesu mbaax kon Seydi Haaji Malik radiallahu anhu dafa bokkoon ca saalixiina yi waaye Seydi Haaji Malik bokkoon ci nitu yàlla yi nga xam ne ci seizième siècle lañu feeñ fii ci réew mi waaye àndaale nag sërica boo xam ni defar na àdduna àndaale sërica boo xam ni defar na Sénégal wallahi ndax balaa nga xam liggéeyu Seydi El Malik ci Sénégal nga wër réew mi fu la waxtu julli fajar fekk ak dëkk bu mu mën di doon boo jullee fajar ba pare dawalal sa nopp wallahi boo dawalee sa nopp di nga dégg naasiril xaq bil xaq kan moo xeex ba loolu am ci réew mi du kenn ku dul sayid alxaaji malik si radiallahu anhu an moo tax mu waxoon ca modeste mu waxoon ca modeste ni laqad rufiat uslubu raayaati cheykhina fa man chaa fal yumin wa man chaa ankara waaye ñi xam dëgg dëgg dëgg xam nañ ni modeste moo tax mu wax ko waaye laqad rafaatu la waaw Seydi Hadji Malick ni yëkkatees na drapeau lislaam yëkkatees na drapeau at tijaniya ba ci réew mi foofa dem di nga fa gis drapeau l'islam muy folate waaye ku mu neex man nga gëm ku mu neex man nga weddi waaye drapeau l'islam dutul fay ci Sénégal waaw ñu borom xam yi gëstu wax ni Seydi Hadji Malick modestam la waaye laqad rafa'tu la waroon wax yëkkati naa drapeau l'islam waaye du fëgg dënn moom Maodo wallahi du fëgg dënn boo demee ci bindam li gën a yéem jàngkat mooy boo demee ci bindu Seydi Hadji Malick anhu nitu yàlla yëpp kenn mucc ci nitu yàlla yi am na lu toll ci xaal il faut que ñu wax nag li leen yàlla defal donte ni dañ koy wax ngir sant seen borom waaye dinañ wax si seen i karaama ak waaye Seydil Hadji malik bindam la muy bare bare bare bari doo ci fekk mukk fu mu jëlee loxoom joxoñ boppam mukk ci àdduna amul bu demee ba nar a joxoñ boppam sax dina maske bind ya ba boo koy liir doo xam ni boppam lay waxal allahu akbar loolu mooy kooku mooy Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ma ni kon boo mooy Maodo la alaaji Mansour waxon rek la lay wax la tasal malikan lol la alaaji Mansour waxon la tasal malikan in kunta tasal ñu ni ko na mu ni fas alil wazira alaaji Mali alaaji Mansour nee na deug deug dëgg boo bëggee xam kan moy Maodo bul sonu ci dem gëstu ay jaar-jaaram dedet alaaji Mansour neena lolou choona la ndax Maodo geej la te geej boko beugé bëggee ba mu jeex da ngay tardel sa bop lama bi ni ko fa bahruka taamin laa tukaddiruhu dilaaw bi shaatiihi man jaa asbaha raadiya loolu la waxoon sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa rasulallah yow géej nga mu ne ko géej nga nga xam ni kenn soxlawul xuus la ba mu jeex ku taxaw ci sa tefes rek doyal sëkk la mu bëggoon dana ko fa fekk waaye alaaji Mansour ni Seydi Alaaji Maalik géej la goo xam ni waay waay bul jiima xuus ngir xam la ca biir mënoo koo matal mënoo koo peek ñu ne ko waaw alaaji Mansour suñu bëggee xam kan mooy Maodo nu ñuy def mu ni fas alil wazira xoolal ñi Maodo defar doy na sëkk ngir nga xam maqaama Seydi El Hadji Malick man mani déet alaaji Mansour ñi Maodo defar sax xam leen wallaay jafe na ndax xam kan mooy Serigne Babacar si rek dina jël temps bu baree baree baree bari dina jël gëstu yu baree baree bari ngir xam kan mooy Serigne Babacar si loolu day xaw a metti sax ci ñun yàlla xam na ko ngir xam kan mooy Seydi El Hadji jërul ñuy xool sax ñi Maodo defar waaye nañu xool taalibe taalibe yi Seydi El Hadji Malick naa ci jël kenn rek ndax nag wedd gis bokk ci nañu jël kenn ci taalibe Seydi El Hadji Malick ay taalibe moom muy maam Abdul Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu mbokk yi yaakaar naa ci mim réew gisaguñ ko ko raw wala boog bu ngeen ko xamee ngeen wax ma ko réew mi di Sénégal gisaguñ fi ku raw Seydi El Hadji Abdul Aziz ci xam-xam ndax ñun li ñuy wax dañu bëgg mu am cëslaay am delluwaay bu fekkee li ñuy wax am na ku ci am werante na dem génne diiwaanu mam Abdou al juzul awwal wal juzul saani xool li maam Abdul Aziz si bind su boobaa di nga nangu ni ñun ci réew mii di senegal gisuñu ko fi raw mam Abdou li koy tegtalee it mooy ñaari histoire première histoire mooy Mouhamad Siis bi mu ñëwee gane ci Sénégal euh, Hassan II gën baal ma bàyyi Mouhamad Siis kere ba ñuy ubbi grande mosquée ci Sénégal buur bu toll ni Hassan euh, euh, euh, II ak li muy représenté ci lislaam di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bàyyi ci xel ca sëtu yonent bi rek lañu may fu ko aljuma fekk mu jiite ko moom du nekk musaafir waaw sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa bu tukki woon fii ba ba ba Makka bu waxtu julli jotee donte ni gan la may nañ ko mu jiite juma kon bu ko xon mooy jiite jumaa ji waaye kere ba mu bëggee ñëw war a jiite jumaa ji ca woyofam mu ni na ko waa Sénégal jiite tànn leen yéen waa Sénégal kan mooy jiite jumaa ji ñu war a ubbi grande mosquée wallaay kere xel yépp gëlëm jaaxle na ko Serigne Hadi waye waaye ba ñu jaaxlee kenn la ñu xalaat mooy maam Abdoul Aziz Sy Dabakh kere moo taxaw jàkkaarloog Hassan ba mu defee xutba ba ba pare ci araab Hassan II dafa dafa tëb ñëw akolaat ko song ko wallaay wax ci moom wax ak juree jëm wax ci moom ne kii daal gisee ko kema musuma gis ku mel ni alxaaji Abdul Aziz Si ndigir xam-xamam bu rëy muy benn ñaareel bi liy tegtale xam-xamu maam Abdou mooy délégation jugee na fii ci senegal ëmb mboolem këru diine yi ak mboolem associa association islamique yi. ñu dem ci turu Sénégal dem Arabie Saoudite ci benn mu'tamar benn ndaje boo xam ne sommet islamique international. kere ba ñuy dem ñu ni waaw kan moo war a bind discours war a jàkkaarloog boroom xam-xamu àdduna bi wax ci turu senegal kere ba ñu jaaxlee dañ ñi maam Abdou yow rek lañ ci yaakaar kere moo bind discours ba nga xam ne ba mu ko jànge fala Sénégal siggee ba faw araab yi xam ni ndekete boroom der bu ñuul bii am na lu nekk ci moom lu nekkul ci borom der yu weex yi. si daba ma ni ci xam-xam kenn rawu ko ci réew mi waaw la Habib Sakho doon wax nag sañ ñaa ko wax Habib Sarr ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm Seyda njabootu Seyda Hadji Malick de nee na kuy natt sa xam-xam danga naan rawuñu ma waaw danga naan rawuñu ma waati waawoon rawuñu ma waaye maa raw waati waawoon ba tey ba tey kenn déggagu ko wax. mais alxaaji Abdul Asiis baax loolu moo nekkoon tollu tolluwaayam ci wàllu xam-xam mbokk yi boo ko jàngee di nga ko xam boo ko lambee di ko daj waaye boo ko dégloo di nga ko dégg ku mel ni maam Abdou ci wàllu ragal yàlla ku mel ni maam Abdou ci wàllu wilaaya. nga xam ne tey réew mi bu jaxasoo maam Abdul Aziz ba mu génnee àdduna ak léegi ñaar fukki at yu topp waaye bu réew mi jaxasoo sax ñu ne nañ demaat dégluwaat kàddu yi maam Abdul Aziz mu réglé waat suñu problème mu tey subhaanallah ban nitu yàlla moo am may ci àdduna may ga àgg ci ba ngay dund bu nit ñi jaaxlee dellu si yow nga faatu nit ñi demuñu sa bàmmeel de demuñu sa bàmmeel ngi ñaan sa barke de waaye bu ñu jaaxalee dañ naan nañ dégluwaat benn ci say kàddu suñu ko dégluwaatee réew mi yëpp àndaat àndaat ak dal kon kooku moom la yàlla subhaanahu wa taala namm ca aaya alquran ba wala taxsibanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yurzaquun yàlla nee na am na ñoo xam ne dugal leen ci biir suuf warul tax ngeen jàpp ni dañoo faatu déedéet am na ñoo xam ne suuf moo leen sàng rek waaye deewuñu de ndax ku dee mooy ku nekk ci bàmmeel ñu fàtte mënatoo xamatoo waaye ku nekk ci bàmmeel di régler problème mu àdduna deewoo alaaji Mansour loolu la waxoon Seydil Haaji Malik laa taxsibuuhu mayitan fi dariixihi hum shuhadaau l axyaau dammahum l qabru mu ne waaye waaye bu leen yaakaar ne Seydi Haaji Malik néew la bu nekk ci biir suuf déedéet kii martyr la bu nekk ci biir suuf waaye tey la dundam gën a yëwan tey la dundam gën a gën a gën a yaatu maam Abdul Aziz Si Dabaax kon ma ni doy na misaal boo bëggee xam kan mooy Seydi Hadji Malick man yi gerul maam <laughs> El Hadj Mansour walaay ëpp na ñuy dem ci ñi ma ci ñi Maodo yar waaye kenn ngi koo xam ni taalibe Maodo ko yar. ndax maam Abdou ki ko jàngal kenn la ci taalibe yi Seydi El Hadji Malick mooy Serigne Hadi ture moo def lu nekk ci maam Abdou moo ko def ci moom moo ko jàngal. moo ko tarbiya moo ko yar ba maam Abdou xëy raw ci réew mi wala kenn rawu ko ci réew mi ñu waxee ko noonu bokk kon macha allahu taala Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu boo bëggee natt maqaamam ci wàllu xam-xam jërul ngay sori dellu rek ci ay njabootam dellu ci ñi mu jàngal. buñ ne la ku jàngal maam raw xaan ngom ca paal <laughs> ñu ni Seydi El Hadj Malick buñ ku jàngal eh, Serigne Haadi Touré ñu ni la Seydi El buñ ne ku jàngal Serigne Elimane Sakho ñu ne la Seydi El Ah, buñ nee la ku jàngal maam rawaan ngom ca paal ñun la Sidi Hadji Malick buñ nee la ku jàngal ku jàngal mboolem muqaddamu Sidi Hadji Malick alxaaji eh, eh, eh, Munir Sarr ca ca Louga alxaaji Malick Sarr ca Louga ku ko jàngal ñu ni Sidi Hadji Malick ak ñaata ñaata junni nit ñoo xamante ni ku ci nekk kàngam nga sa jamono ma ni kon loolu misaal la ngir wane dimension xam-xamu Seydi Alxaaji Malick si radiallahu anhu kooku mooy Seydi Hadji Malick ci wàllu xam-xam moom la war a waxtaane waaye bu ñu bëggee jàngat dundu Seydi Haaji Malik kadalik ci li mu defar ma mashruuhul islaahi loolu loolu loolu lu doy waar la mbokk yi ndax réew mi ci senegal Seydi Haaji Malik mission bi mu fi dox ba réussir ko fi mu àgg ci diine ma ni mbokk yi loolu euh, yaakaar naa waxtaane ko ci ay jotaay dina jafe lool ndax wax naa sànq ni foo dem ci réew mi jàkka joo fa fekk néew na jàkka ju am fanweeri at ci Sénégal nga laajte ku ko fondement ca waxuñu la Seydi Hadji Malick wala njabootu Seydi Hadji Malick wallahi loolu xaqiqa la réalité la boo demee ci benn téere boo xam ne euh, professeur Alassane Ngom moo ko bind Alassane Thiam di ci wax ci Seydi Hadji Malick bu la joxee statistique gu jàkka yi amoon ci diggante mille neuf cent euh, cinquante trois mille huit cent ba mille neuf cent cinquante jàkka yi nekk ci Sénégal ba ba bi ñuy am indépendance 1960 bu la joxe statistiques yi ci réew mi da nga ci yàlla wallahi ci ngay xam ni ëllëg Seydi Hadji Malick li ñu wax nii jarul kenn di ko layal bu ko kenn layalul woon jàkka yi ci seen bopp ñooy ñëw layal Seydi Hadji Malick si radiyallahu anhu kon kooku mooy Maodo mooy Seydi Hadji ci wàllu dimension mashruuhul islaahi mu nekk nag koo xam ni euh, bu ñuy waxtaanee xarakatul euh, yi ci Sénégal euh, atum 1853 ba mi mu génnee àdduna 1922 diggante boobu li ci Seydi Hadji Malick liggéey ci réew mi wallahi làmmañ lott na ci di ko tudd moo tax tabaarakallahu incha allah bëgg na nañu ñëw lu yaatu ci dundam waxtaanee ko mbokki yi ndax dafa jot ñu xam kan mooy Maodo dañ ko umpale wallahi dañu umpale kan mooy Seydi Hadji Malick dafa jot ñu xam kan mooy Seydi Hadji malik ndax xam ko daf ñuy yokk lu bari li nga xam ni def na ko ci réew mi muy ay jaloore yoo xam ne tey kuy wax allahu akbar di wax laa ilaha illa allah wallahi war nga ci war nga ci gërëm Seydil Haaji Maalik Si radiyallahu anhu ci liggéeyam waaw ci liggéeyam ci réew mi jàngale na yeete na gindee na ba réew mi kenn nelawatul kenn dofatul waaye nag ndeysaan ba mission ba matee la mu waxoon rek mooy li ci am solo ndax ba mission bay waajamat dafa dajale muqaddam yépp ni leen waaw waa ndax tey su ngeen ma gisoon ma nekk ci ndaka sudul noonu bàyyi julli bàyyi woor nu ngeen di def ñu ne ko ah Maodo xanaa ñaanal la yàlla gindi la nga dellu siwaat ca nga fekk ca yoon wa rek mu ne alhamdulillah kon sama mission mat na alhamdulillah bi ma yàlla war wërsëgalee taalibe yoo xam ne bis bu ma jàddoon yoon ñu tegaat ma ci yoon kon sama mission mat na defatuma dara ci kaw suuf ca nga bàyyi xel ni wallahi Seydi Hajji Maalik mësul yëx baatu taalibe mukk ci àdduna ah, lan la doon wax samay nawle sama mbokki taalibe samay nawle ci diine loolu rek la Sidi Hadj Malick waaye Sidi Hadj Malick musu wax baatu taalibe ëppoon na ci moom ngir macha allah taala maqaama ba mu tollal kon nag tabaarakallah waxtaane ku mel noonu yaakaar naa farata la jot na bu baax a baax ñu dellu siwaat ci incha allah dañ waxtaane ay jaar-jaaram suñu kéemtalaay kattan fa mu jaar fa mu gane àdduna fi mu jànge ñu ko jàngal macha allah ñi ko yar ñi ko tarbiya waaw ci wàllu alquran ci wàllu ulumul luga ak ulumu sharia fu Seydi Hadji Malick jaar digganteem ak Alu Yaqub ca Mauritanie fu Seydi Hadji Malick jaar la mu def jagsaaw na mu taxawalee jagsaaw na mu def ca njaarne la mu def ca ngàmbu cille loolu yëpp incha allahu taala dinañ ci ñëw digganteem ak ndar zawiye ba ca ndar zawiye bi ci Dakar lu ko waraloon loolu incha allahu taala nañ ci ñëw ci waxtaan yi waaye demu demu màkkaam gaag la ko waraloon lan la ca xew ci ay karaama yépp incha allah dinañ ci ñëw ba li nga xam ne taxawal na ko ba taxawal nag université populaire de Tivaouane loolu yépp incha allahu taala ci waxtaan yi ñëw dañ ko am kon dañu doon def introduction ngir préparer suñu waxtaan yi nga xam ne war nañ ko wax الولي الكبير الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه يالا يلا ماي ني بنو با ني مانو كو اغال سي جام يالا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ومن اذا دعوا الى الله لب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيت الولايات فيه فخذ ومن فتح الخلق I can't Shatrur Bhuvi